la population de Kédougou. Merci, chers Kédoviens. maa di nuyu di ñi nga déplacé en masse vous les Kédovins. ci mais kontaan naa surtout ci liggéey bi nga xamné les responsables de Gëm sa bopp def nañu ko à leur tête ma mun ci cité Baylo mi nga xamné ci salemata def na fa liggéey bu am solo moom Mamadou Baylo mais à partir d'aujourd'hui mettez la âme pour accueillir cette dame qui est brave cette dame engagée cette dame sociale cette dame toujours prête à défendre la cause des plus faibles cette dame qui ne respire que pour Kidou. Je veux nommer Astou Saho Astou, le choix Bingadef. Yao Yako Je crois Boudon présélection. wala éliminatoire kon Bougane gagné na parce que légui ci kaddu gi né nga waxtan nga ak candidat yépp mais candidat bi dal sa xel candidat bi retenir sa attention candidat bi nga bokal xalat candidat bi nga bokal yéene candidat bi nga xamné da nga ci gis sa bop c'est le candidat de la coalition Bougane 2024 ce mouvement ADS à partir de votre déclaration jàpp désormais le mouvement ADS c'est un mouvement national Nous la grande coalition comme ça. bien bi nga xam 2024 Inch'Allah. merci à vous Merci à la population de Kédou. Ce matin, dama jaar bi may ñëw le chef de village avec Imam au village d'ailleurs à ak jeunesse daje ak ki jité femme yi ak suñu représentant bi nga xamné mo fa nek mudi Lolo il est dans la salle le chef de village ne ma bo boo tëddee nelawal parce que Tomboronkoto waxuma Tomboronkoto mais lepp liko wër mudi commune bi inshallah dana nu gagner tek ko ci salon loxo kon et li tax ma am mbégte pour dem koto parce que ci parrainage bi également ñoom wa Tomboronkoto en koto presque 500, 450 parrain parrains dajale nañu ko ci village bi ñu doon ñëw indi ko comme contribution ci collecte bi nga xamné Mamadou Gueye l'original mo jité cellule bi ñu taxawal pour lolu comme c'est le lieu de remercier toute la population de Kidou. Non nous ñu ko amé à Salemata. Non nous ñu ko amé à Missira Sirimana Non nous ñu ko amé à Kevoy. Non nous ñu ko amé à Salémata ci liggéey bu am solo bi nga xam def nañu ko bu fi nekkee di lim communes yi nekk ci biir région bu kidougou fi lañuy ñuy des mais retenez que les responsables de la région de Kédougou au niveau de la coalition Gëm sa bopp un pour liggéey bu am solo li c'est yéene bëgg ko yàlla suñu borom sottal li ngeen bëgg ci réew mi suñu borom et je m'en vais parler avec la jeunesse de Kedougou je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer. À partir du 25 février 2024, Kidougou, dana am benen visage à partir du 2 avril 2024 l'une des premières décisions bu ma produits bruts exportation suñuy produit brut dañ koy arrêté dootul am ci Sénégal loolu su ma ko waxee seen xel war dal parce que alal ji Kédougou am alal gi Sénégal oriental am yéen doomu Kédougou gisu ko ak bët et je vais aujourd'hui vous dire Kédougou yàlla jox na leen lépp lépp luy teranga yàlla jox na ko Kédougou mais Kédougou mooy deuxième région bi gën a néew doole bi gën a ndóol bi gën a ñàkk ci Sénégal c'est fait à dessein ñi ko def ñoo ko tey loolu lañu bëgg parce que dañu bëgg bu nit ñi di xiif ñu leen di jox pepp dañu bëgg bu nit xiifee di leen topp ñoom dañoo bëgg yéen ngeen di gën di xiif ñoom ñuy gën di pataa seeni biir di rëy ñoom ñuy gën di avancer ñoom ñuy gën di jël alalu réew mi di ko fooye di jël alalu réew mi di ko pasar pasare parce que am na loo xam ne quand même metti na ci xol xoolal li xew keroog xosanto xam nga waa xosanto lu ñu doon xeex waa xosanto c'est important que sénégalais yi xam ko xosanto xeexuñu woon pour am ci or bi de xosanto dañu doon xeex ngir seen doom yi nekk ci dëkk bi ñu jël leen ci liggéey contractuel bi ñuy def ngir jël or xanaa kon nga xam ne kooku ñàkk na pexe alors dama bëgg nag ngeen gën a gëm seen bopp ñi yor alalu réew mi di ko fooye li ñu yor moomuñu ko yéen yéen leen koy jox alalu réew mi ñu nekk di ko fooye alalu réew mi ñu jël tayle ko jox ko ay tubaab ñuy jël suñuy ressources di ko yóbbu bitim réew loolu bu ngeen bëggee mu dakk dina dakk mais bu fekkee ne yéen waa Kédougou bu fekkee ne yéen waa bu ñu leen joxee benn DG boo xam ne la muy jariñ ci dëkk bi matul fukki nit bu fekkee ne loolu moo leen gënal seen ëllëg yéen ak seen njaboot loolu aussi seen choix la bu booba dama bëgg ngeen xam ne Benno Bokk Yaakaar élection yi di ñëw bu ngeen leen mayé tarafatal ay ni jafé jafé yi ngeen nekk ci walu ñak ci walu choona ci walu jafé jafé yi dund ak paju day gëna yok quand vous n'avez pas le choix et on ne vous laisse pas le choix d'ailleurs ben choix mo fi nekk moy jële fi Benno Bokk Yaakaar Macky Sall du mom moy tan kuy wuutu fi ci Sénégal ngir jité ko et les Sénégalais sont déterminés nous sommes engagés pour que le règne de Macky Sall mu arrêté Inshallah, le 25 février 2024 dégg ñuy wax ne Kédougou région la bo xamné potentiel bi mu am kenn la région de Kédougou à elle toute seule peut nourrir le Sénégal Kédougou amna or Kédougou amna uranium Kédougou am na cobalt euh, basalte du moins Kédougou li ñëpp soxla li garantir xaalis la Kédougou am mooy or dégg naa ñuy wax ne dañuy def comptoir or Kédougou waaye comptoir or nu ñu koy doyee te or bi mën a jël loo xam ne dafay garantir suñu xaalis bu ñu kenn nax tollootuñu fuñ ñuy naxe danañu installé usine bo xamné fi ci Kédougou fonderie lay nekk manam or bi dootuñu ko jël dugal ko ci avion yóbbu ko Zurich wala ñu yóbbu ko Italie ba noppi def ko fa or transformer ko doog ñu wo pour wax ñu lu ñu am ñun kan na suñu mënoo jël suñu or dugal ko ci avion yóbbu ko ci réewu tubaab yi ba noppi woowaat nu nan avons 1000 kilo ou 1200 kg. et pour dire que nous nak nit ni. Nyom rapor le nyo publie. Senegal 2022 genne ne kg kilos 200 or. 19 tonnes d'or. 19 tonnes or fumou kiete Senegal du le mais au même moment ñu ne la waa Mali soixante-dix-sept mille kilos la ñu liggéey ci benn même at maanaam soixante dix ñun ñu nekk dix ci li ñu déclaré je dis bien ci li ñu déclaré waa Burkina nekk ci quarante-quatre quelque chose qui cloche. alors wax bu dofee nopi yi koy déglu moy nité li ñu bëgg ngeen xam ko moy alal ji génn ci suufu Kédougou dafa wara jëriñ Sénégal dafa wara a jëriñ jeunes yu Sénégal et ci loolu ñun on a décidé dans notre programme que le code minier xam ngeen ne le code minier dafa wax ne fépp fu ñu hors. or Société, il faut exploiter 5% du chiffre d'affaires doit être délégué dans le 2e degré. C'est-à-dire la zone de Sabadola, il faut un chiffre d'affaires de 300 milliards. Est-ce que nous avons vu 2,5 milliards d'unions qui y a déléguées dans le 2e degré Nous l'avons vu. Et pourtant, c'est ce qui est en Mais nous ne l'avons pas État au Sénégal, 2022, encaissé na deux cent trois milliards ci or bi ñuy exploité ci Kédougou deux cent trois milliards man du ma wax lu nit di weddi milliards la état bu Sénégal encaissé ci or bi ñu génnee ci région bu Kédougou normalement normalement war nañu jël six milliards yoo xam ne ou six milliards ak lu topp yo xamné investir parce que dañu wax des taxes encaissées doivent être reversées ou en tout cas investies dans la zone bi nga xamné mom mine bi génné alal je crois que beaucoup d'états état Sénégal défendent. si l'état du Sénégal à travers le président Macky Sall n'avait pas détourné l'objectif de cet argent kon tey jii Kédougou du nekk deuxième réew dëkk bi gën a ci Sénégal kon retenez-vous alal jii génn ci dëkk bi dina dellu ci seeni doom alal jii génn ci dëkk bi dina dellu ci parce que alal ji du ci Sénégal du or bu Kédougou pétrole bi ci la bokk gaz bi ci la bokk zircon bi ci la bokk suñu jën yi ci la bokk dañ ko brader mais l'autre richesse extrêmement importante moy Sénégal dafa am jàmm et limay wax encore une fois on va dire Bougane waxatina oui bo démé ci catalogue bi yor suñuy ressources naturelles nga xamné ñom ministère bi yor walu mine ak géologie ñoko publier ñom ñone Sénégal amna indice jama jama kenn du ko fonto buñ la waxé né la amna indice jama ça veut dire lu romb jama ma nga fa parce que man dama bokk ci ñi nga xam ne ñu jité gëwuma leen seeni wax jarul may dóor suma donc buñu la waxé né sangam ma nga fa lu romb lolu ma nga fa buñu la waxé né légui astu mu ngi koy wax mais on a de l'uranium mais uranium bobu c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui du Niger mais le Sénégal oriental a une bauxite bauxite boobu mon mooy nek tey richesse Guinée Conakry ana ñun suñu boss. et aujourd'hui Amna y ay une yu nek Sénégal di waaj a exploiter uranium donc ça c'est également une autre information donc fi ngeen di toog ba si yàgg ñu leen wuy dañuy testé ndax am nañu jamaa wala nangam nangam jamaa am na fi ñoom ñoo wax de jamaa am ci dëkk bi waaw léegi ñun yàlla mën nañoo jox or jox ñu jamaa pétrole jox gaz jox ñu nangam nangam te waa deuxième dëkk bi gën a Sénégal alors cette injustice dafa doy. injustice boobu dafa doy te bu ma leen ko waxee yéen ngeen war ko gëm man Bougane je ne suis pas un politicien yi moo ndax ma takk suma ndigg wàcc ci langue bi pour xeex ak ñoom pour wan leen ne réew mi ñoom moomuñu ko dafa fekk ne dafa am ñoo xam ne dañoo am beneen engagement nekkoon ci beneen terrain mais tey jii jog nañu pour jàkkaarloog ñoom pour ñu xam ne Sénégal suñu Sénégal doom yi ngeen uuf la suñuy sët seen dund dafa war a gën ñun suñu bos moo tax ci biir le programme tekki dañ ne alal bi génn ci Sénégal faw ñu séddale ko ñu ne bi ci njëkk mooy fexe ba bépp bachelier boo amee bac ñu jox la un million de francs beneen bi ci topp

moy courant bi ngeen di utiliser et etc et cetera bi ci mujj toutes les familles borom kër yi nga xam ne yëpp dañuy jënd courant tey jii pourquoi parce que li nekkoon woyofal te léegi doon on s'est rendu compte que y am une augmentation de 60 le kilowatt d'électricité da doon jar 115 francs tey ce même kilowatt mu ngi à cent quatre vingt quatre francs waa léegi fu njaboot gi jëm moo tax bu ñu lay wax naan la ñu ngi xaar huit cent milliards ci exploitation gaz ñu ngi xaar huit cent milliards ci exploitation pétrole ma ne nañu tey parce que li ñuy xaar ci exploitation gaz ak pétrole bi yëpp fii ba deux la FIBE 2030. Si on a 20 000 milliards, nous, au Sénégal, si nous produisons intérieur brut, nous avons 15 500 milliards. Maintenant, nous devons attendre nous qu'on fait lo xamné japp nous né mo wara défar sénégal alors que nous alal ji ñu nous avons fait défar sénégal or bi di génn kédu waxna livre bi ma wara génné or bi fait génn kédu man gisuma état bu Sénégal bi ci gagner 2 203 milliards mais dama gis Séné état bu Sénégal bu amé ay nit ñu xaré bu amé ay nit ño xamné dañu am expertise en en finance bu avéré ñi nga xamné dañuy def ay montage de projet di def lepp lo xamné dafa jëm ci expertise financière 19 000 kilos d'or yoy man mun naa ci génné lu ëpp 5000 milliards

de yoni nit tek mbir yi ci loxo et inshallah, le développement de la région de Kédougou retenez j'en fais une promesse ça passera par le président Bougane Gueye inshallah et loolu pour mu nek pour mu nek il faut yéen kenn ku nek ci yéen tak ndigam. pour ñu jóg jëli fi ñi fi nek mais bañ fi tegaat également ay politiciens professionnels

am gu gën yeen bi ngeen di et c'est bel et bien possible kon maa ngi remercier bu les responsables ci mobilisation bu am solo euh, également waa Dande Mayo ci ñëw bi nga xam ne nous nañu ko et di leen wax ne seen avocat euh, Astou effectivement elle est venue m'en parler ne ma le la quartier le bu amul courant quartier le bu hmm? di alors hein? voilà mon amul amul courant et voilà donc pour dire qu'elle m'en parlé pour dire que na ba sama bureau waxtaan ak man ci

ne man je n'ai plus droit à l'erreur c'est pourquoi je pardonne tout le monde Que pour ma tooñ man baal naa la képp ne man tooñ n'a la it maa ngi lay jéggalu di je veux être ce président de la république Je veux être dina uuf njaboot jaar fa je veux être ce président de la république bi nga de du parce que je veux être ce président de la république qui sera à votre disposition ce président de la république qui ne sera pas le père de la nation mais ce président de la république qui sera un serviteur de la nation ou trois questions ou ou trois Voilà, euh, je euh, à Kédougou. Euh, comme tous les intervenants sont bien, régulièrement ici à Alors, je Parce que, parce que, j'adore Parce que vous adorez Dans le cadre de votre programme, pour le Sénégal. Qu'est-ce que vous réservez concrètement euh, pour la région de Kédougou pour lendemain de votre victoire euh, du 24 février 2024 Merci Ibrahim Diabahate. Je crois que je suis revenu là-dessus. Je vais revenir quand même là-dessus. La région de Kédougou a d'énormes potentiels. Mais vous savez, des ressources naturelles, tant qu'elles ne sont pas exploitées, elles ne sont pas une richesse. Mais bu nekk exploité du je vous donne l'exemple c'est en 1974 qu'on a exploité le marbre dans la région de Québec. 74 biñu ñu exploité marbre bi 74 ba léegi kenn la on préfère dem jëndi marbre Égypte dem jëndi marbre Dubaï dem jëndi marbre Italie dem jëndi marbre Chine alors que marbre biñu am ñun fi ci Kédougou mo gën marbre yoyu junni yoon et lolu wa IBEL duñu ma kon L'exploitation de ces ressources est un impératif. Et ça fait partie des toutes premières décisions que nous allons prendre. Il ne faut pas nous dire que avons une expertise bi nous avons jël li ëpp ressource bi c'est archi faux il faut que nous soyons des patriotes Patriotes. nit fi nekk ñu ngi bëgg ñun suñu réew duñu jël suñu alalu réew suñu richesse su ay doom ëllëg di ko tayle di ko jox ay bas. moi Bougane je ne suis pas un préfet de la France et je ne serai jamais un préfet d'un quelconque état puissant ou etc. comme ça man nit laa koo xam je suis passionné du Sénégal man Sénégal moo nekk ci suma xol booy waxtaan ak man bëgg luma neex sax danga may wax waxi Sénégal parce que et je veux comprendre ce que les Sénégalais sont en train de vivre pour avoir les solutions et déclencher toute une procédure pour régler ces problèmes. Je viens de vous dire que l'exportation des produits bruts mais lolu suñu ko interdire mais ça veut dire que produit brut bu nek ci Sénégal lañu koy défaré ba paré dogo ko génne bitim rek kon bu boba est ce que yaakaar nga né suñu or bi nanan ko sàcc parce que or bi ñi koy sàcc du tuba bi hein ah. or bi ñi koy sàcc punkal yi ñu jité ñoy tojé or ci sa la réel ñom ñoy lek xaalisu or bi ñoy lek or bi sen mbokk seni xarit ak seni jage ñaan et ils oublient la population man Bougan, su ma leen waxee président Sénégal du lu may pour lu ma force suma poche mais dama jàpp ne kenn ku nekk ci dans cette salle kuy dund li mu am tey war multiplier par 10 wala par 20 pour pouvoir d'achat wam mën ko permettre li bëgg mu mën ko am tey jii jigéen ñi daje ci biir GPF groupement féminin ndajale yi mais li ñu ciy am pour yow pour lan mais pour dimbali seen ont li ñu am c'est pour nos enfants et je vais vous raconter quelque chose man musuma toppatoo Euh, nangam lu muy jar wala sàngam lu muy jar weer bii ci ginnaaw dañ ñëw ne ma wuy dépense bi ma joxe dépense bi ñu dellu si waat une semaine ne ma wuy nangam jeex ma joxe je une semaine encore ñu ne ma mais nangam soosu jeex na man leen mais man ni ma daan jox moo mi weesu naa ko donc ça veut dire

suñuy njaboot il faut ñu taxawu les Sénégalais merci Ibrahima Diabate.